sëriñ Modou Baara Mbacke sëriñ Modou Baara Mbacke mi ngi gane àdduna bisub alxemis ñaari fan ci rakkaat ji gàmmu ci atu 1328 ci gàddaay gi alxemis ñaari fan ci rakkaat ji gàmmu ci atu 1328 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 12 mai 1910 cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu sëriñ Tuubaa seexul xaddim xam ne ab taawam ganee na àdduna ci dëkk boobu di sànnoo si ñu fopp jëmm ji wala tur wi yëgal ko ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim booba mu ngi woon ci cëy yéen jolof seexul xaddiim wax ne nañ ko tudde cheikh mohammed alxafis mbakke sëriñ moodu baara tur wi ko seexul xaddiim duppee mooy cheikh mohammed alxafis mbakke néew na lool nag tur woowu ñu di ko ko wooye waajuróom wu jigéen mooy ku ñuy wax soxna xari gay doomu sëriñ moodu gay jamooñ bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ci ginnaaw ko baax ki sëriñ tuubaa xaadim rasuul ak ku ñuy wax cheikh mohammadu lamin baara mbakke ibnu seexul xaddim sëriñ muhammadu alxafis mbàkke mi am na ñu mu bokkal soxna xari gay mi waaye bëgguñu cheikh muhammadu lamin baara mbàkke ñu ràññee ci ñetti doomu aadama ak moom muy ñeent sëriñ ka musaaka ibnu soxna xarigay gay ak kii di sëriñ sàmba tukkulóor ka sëriñ bàcc ka taysiir ibnu soxna xari ak sëriñ sàmba tukkulóor ka sëriñ mbàkke ka kolabaan ibnu soxna xari gay ak sëriñ sàmba tukkulóor ka ak moom mi nekk seen mag di sëriñ moodu alxafis Idriss Mbacke ibnu soxna xari gay ak cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu xaadim rasul ñii la soxna xari am ñii tim la sëriñ Moodu Alxafis Mbacke bokkal waajuru jigéen bi matee dal lii di alxuraan sëriñ Tuubaa seexul xaddiim lañ ko indil ci njaareem booba kat seexul xaddiim jóge na ci yéen jolof ñëw nag ci dëkk bu sell bii di njaareem moo ko dalal lii di alxuraanul karim ginnaaw bi lañ ko jox magu waajuroom wa di cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ci dëkk bii di Onstuul ñu gën koo xam ci wetu ndóodi mu nekk fa di jàng alxuraan ci daaray cheikh mamadul mustafa mbàkke jooju ginnaaw bi nag jëlee nañ ko fa jox ko jàmbaari ku baax ki sëriñ tuba seexul xadim di sëriñ ndaam abdourahman loo ginnaaw sëriñ ndaam abdourahman loo dem na itam ci cheikh mohammadu dem bu njaareem ginnaaw sëriñ mohammadu lamin dem bu njaareem nag lañ ko jox sëriñ habibu mbàkke imaam ci tuuba ginnaaw sëriñ habibu mbàkke imaam lañ ko yóbbu dëkk bi di faas ture am njàngam ci sëriñ aadi Touré la mujjee jànge mu delsiwaat nag ci ëttub waajuram bi cheikh mouhamadul lamin baara mbàkke toppit ca ginnaawam nekkit ab taawam sëriñ mouhamadu alxafis mbàkke mi di sëriñ muudu baara mbàkke bokk na ci sëti sëriñ tuubaa yi mag moom la sëriñ tuubaa njëkk a gis ci sët bu góor boo xam ne nii doomam ju góor moo ko jur moom la sëriñ tuubaa njëkk a gis ci sët bu góor boo xam ne nii doomam ju góor moo ko jur sëriñ mouhamadu wi def ko sëriñ ak waajur di ko liggéeyal nekkit ku géeju ci wàllu njàng fi mu jaar fépp ci wàllum njàng ay boroomi xam-xam rek ñoo ko séq te sëtub xaadim rasuul la ba tax na nag xam-xam googu mu amoon doon na ko jëfe ay way sax def na ko jëmale waye ci nit kuy dund te topp lii di soom ginnaaw bu génnee àdduna ba fekki suñ boroom lu ko ca man di fekk wala lu ko ca mën a fekk ñu teewlu way yim ci def dunya xururun min ladun nashat fala taman laha kaydan fakun mutabarra innal maniyata taltaxitu anfadana kaddiikin yaltaxit xububal manzax tànn yeneeni way jagleel ko dëkk bu sell bi di tuubaa jullit bi wala lii di murit bi naka la fi mën a nekke ba du xaabaabal ñu teewlu way yim ci def fahal min azimin wa bihi iftixaar ila baladu bihi alqawmi alkiram biladu saadin tuuba xayru daarin bihi alxayraatu wa niamil jisaam sëriñ moodu alxafis mbàkke bind na itam yeneeni way jagleel ko lii di tasawuf ndax kat maamam ja sëriñ tuuba seexul xaddim bindoon na itam ak xasida jagleel ko tasawuf muy xoqal bukaa kii di cheikh mohamadou alxafis mbàkke itam bind na ak xasida jagleel ko tasawuf ñu teewlu lenn ci ay way yu nekk ci xasida googu rijalun ida tabaqa al ardu xaadisun ramaw bi sadqi al asmi fanjalaba makshufa hum urwatul wusqa wa hum anjumul huda bihim yudhibu llahu masahibu taltifa sifatuhum asna min shamsin fi duha wa ahsanu min durri al qalaaidi masfufa ginnaaw xasida googu mu bind def ko ci tasawuf sëriñ mohamadu alxafis mbàkke itam wéy na di bind jagleel na ay way waajuróomam yi yi muy ñi cheikh mamadou lamine baara mbàkke bokkal seexul xaddiim naka la leen taalibe yi war a jàppe ban warma lañ leen war a jox ñu teewlu itam lenn ci way yuñ juqee ci xasida googu mu leel ko waa juróomi mi laaye biir muridi ngir warma juñ war a jox doomu seexul xaddiimi wa in jaala annaasu almawadda sunnatan jaciltu ala tuuli lmada xubbukum farda fa in lam nafus fa awraahuna xata jawaaricna marda kii di génnee lii di àdduna itim kii di sëriñ Modou Alxafis Mbàkke itim def na ci ay way ngir di jooy waajuram wa ci gàtta daa kii di sëriñ Modou Alxafis Mbàkke bindkat la woon te seede saa ngi noonu bind na itim laneen lu takoo takku loo xam ne ni ku dem ci njaboot gi ñu won la mbindam jëfi sëriñ Modou Baara Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke mën nañ cee ràññee wàllu njàng ak njàngale ku ko fonkoon la ndax kat loolu rek la ko waajuram wu tedd wa jaarale di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke te lay taxamtiku def na ci lu am solo ci wàllu njàng njàngale moom cheikh mohamadou alxafis mbàkke mi sanc na itam ay dëkk ci ndigalul waajuram cheikh mohamadou lamin baara mbàkke ñu ràññee ci dëkk bi mu njëkk sanc ñu koy wax tey siirul xasiir ci atum 1933 sancaan na beneen dëkk itam bu tudd daara mohin mu nekk fay jàng ak di jàngale di yar ak a tarbiya di sàmm itam ndonul waajuram wi di cheikh mohamadou lamin baara mbàkke ak li leen fi seen maam ja seexul lim bàyyee ci loolu nag ci la sax ba ni fi waa waajuróom wa cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tuuba seexul xaddim bàyyi ko ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu mu amoon ndigal dem fa ci ndigalul waajuróom wa cheikhul xaddim di mbàkke kajoor booba kii di sëriñ moodu baara mbàkke ci ñaar fukki at ak juróom benn rek la tollu waajuróom wa cheikh mamadou lamine baara mbàkke génn àdduna kon kii di cheikh mamadou lamine baara mbàkke mi ngi génn àdduna weeru tabaski ci atum 1354 ci gàddaay gi altene benn fanub tabaski ci atum 1354 ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 24 février 1936 lundi 24 février 1936 sëriñ Mouhamadou Alxafis Mbàkke xam ne nag yan bépp nag ci kawam la këpp léegi kat la waajuram wa doon def di Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moom mooy ki ko war a def teewul nag ay waajuram ñi ngi fi ndax cheikh dul moustapha mbàkke mi magu waajuram mi ngi fi te itim yeneen doomu seexul xaddiim yi mi ngi fi kon nag mu nekk sët bi njëkk wuutu baayam ci kaw suuf ci at yu néew di ñaar fukki at ak juróom benn waaye mu xam ne rek doomi gaynde gaynde rek lay doon mu xam ne léegi itim liggéey rek moom mooy li sës ndax kat ay rakkam ñu ci takkoo takku seenum njàng sax matagul te moom it taniwu leen bu baax a baax waaye mu xam ne ëllëgu génération bu yaatu mi ngi ci ginnaawam te moom cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bu ëllëgee duñ ko laaj sëriñ baara moom mii lañ koy laaj ku ci sam njàng matul mu yóbbuwaat la ci foo war a jànge ngir sam njàng mat njabootu cheikh Mamadou Lamine Baara gépp te moom la ñuy xoole cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke kon kat ku yaa biir te nangoo fate nangoo joxe lekk kat moom mooy nag li ko war lépp nag lu ko waroon ci njabootu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke gi kii di sëriñ Moodu Baara def na ko ci at yu néew dëkk bi cheikh Mamadou mu taxawu def ko nag dëkku mag moom ba léegi ku fi toog xalifab cheikh du lamine baara mbàkke mbàkke kajoor si xooko kenn cheikh yi fi cheikh mamadou lamine baara mbàkke bàyyi mu def leen ay waajur di leen xoole itam cheikh mamadou lamine baara mbàkke ngir xam na ne loolu rek mooy li ko war sëriñ moodu alxafis mbàkke bari na nag ay tur yuñ koy woowe am na ay turandoom yu ñuy woowe mbàkke ndax kii di maam mbàkke loo bu tuubaa guy mbind mi ngi fi te turandoom la te mbàkke lañ koy woowe am na itam ay turandoom yu wooye sànna ndax sëriñ sànn jóob bu sëriñ ñaan jóob mi ngi fi te sëriñ moodu baara lañ ko tudde am na itam ay turandoom yu ñuy wooye moodu baara ndax sëriñ moodu baara mi toog xalifa ma ngi fi te moodu baara yi itam bari na guy mbind kon lii di ay tur moom am na ko yu bari yu ñu koy wooye te wuute moom sëriñ moodu alxafis mbàkke màggalug cheikh mamadou lamine baara mbàkke mooy kii ko njëkk a taxawal di ko màggal ci dëkk bii di taysiir fa la ko daa amale ci bis bi cheikh mamadou baara mbàkke génnoon àdduna di benn fanu tabaski ndax bu leen fàtte ne màggalu cheikh mamadou lamine baara mbàkke gi ñuy defee mbàkke kajoor ci benn fanu tabaski lañ ko daa màggal ba ci xilaaf ak sëriñ tuuba seex saaliwu mbàkke moo wax ak kii di xalifa général des mourides bii fi nekk sëriñ cheikh sidil moxtaar mbàkke ngir ñu soppi ko waaye sëriñ mouhamadou alxafis mbàkke mi ci benn fanu tabaski la ko bàyyi te moo ko sos ba tey ci liggéeyu sëriñ mouhamadou alxafis mbàkke mi kii di bàyyi maama njaay jàngkatu xasida yaakaar bii di xarnu bi moo ko jàng ba ci sax Mama Njaay xarnu bi lañ koy woowee bi ñuy sanc dëkk bii di siir booba tuutànk la woon ci wàllu zaayir waaye am xelam dafa néexul woon lool lool lool luñ ko masaa jox ci wàllu mbind ngir mu jàng ko bala koo mokkal fàtte ko bi ci sëriñ Muhammadu Alxafis Mbàkke mi sonnee ci sas wi wala di ko sax ci wàllu njàng la xëy xëy na ko maam màmma bàyyil ma def li gën a gaaw bim raayee bopp bi la Mama Njaay lu mu tiim mokkal wàllu wolofal yaakaar naa ne macha allah baat bi leer na te neex na te doo dégg mukk mu jàng gag ba tey ci geneen kiimaan gu sëriñ muhammadu alxafis mbàkke mii def mag ñi toog nañ doon yéem gàtt fanu cheikh muhammadu lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax ci ñeen fukki at ak juróom rek la jàmbaar jooju dund sëriñ du baara keroog ma ngi leen di tontu ne sëriñ baara de li mu gàtt gàtt gàttuwu fan man ñii di cheikh muhammadu alxafis mbàkke de maa koy gën a gàttuwu fan noonee mu ko waxee ni la amee ndax waa juróom mu ñeen fukki at juróom la dund te moom ci ñeen fukki atam ak ñaar la génn àdduna baneen kiimaan bu mu def dañ man koo ràññee mooy bis bi muy génn àdduna ab feebar moo ko tëraloon ci diiwaanu ndakaar mu demoon doon faju ji ab otob 404 mbaar la jënd tëdd ca ginnaaw kees ga mu sut lii di kees ga mu dem ci ab tëgg ñu yokkal ko lii di keesu oto bi ba moom bu ca tëddee daraam du feeñ mu téléphoné kii di sëriñ Abdul Aziz Baar dara di ko wax ni bu alxemisee nga fekk ma ci dëkk bu selli bii di tuubaa nakate oto boobe mu jëndoon nattoon ca boppam defarlu lii di ak kees itim nakate oto boobe moo koy indi tuubaa lii itim sëriñ muhammadu alxafis mbàkke jaar na ci keroog bi muy génn àdduna kon nitu kiimaan la woon te ku yéeme la woon ak yeneen ak yeneen yu mu def yoo xam ne ni niixu ta wax ci rajo ginnaaw jëf yi mu jëf laata muy génn àdduna jëndub oto natt ca boppam woo ki ko war a wuutu ci xilaaf ak cheikh mamadou lamine baara wax ko ne bu alxamisee nag ma fekk ci dëkk bu sell boobu di tuubaa sëtub cheikhul xadim bi mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu di ndakaaru njaay bisub alxamis fukki fan ak benn ci weer wii di weeru korite ci atum 371 ci gàddaay gi alximis fukki fanag benn ci weer wi di weeru korite ci atu 1371 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 3 juillet 1952 jeudi 3 juillet 1952 ñu jébbal ko boroomam ci wetu waajuram wa ci armeer yu mag yi sëriñ abdul aziz baara wuutu ko nekk ñaareelu xalifa cheikh mohamadou lamine baara mbàkke wéyal ndonol cheikh mohamadou lamine baara mbàkke sëriñ xaadim moo muudu baara mbake moom it di sët bi sëriñ baara njëkk a gis ci kaw suuf ci góor wuutu ko ci këram sàmm njabootuk sëriñ du baara mbakke gi sëriñ xaadim muudu baara mbàkke wutaloon na bis wala wutal na bis kii di sëriñ muhammadu alxafis mbakke di waajuram muy di ko ci fàttaliku mu dëppoo woon nag bis bi cheikh muhammadu alxafis mbàkke génn lii di àdduna muy fukki fan ak benn ci weer wii di weeru korite màggal nañ ko ay ati at ci nekkiinu sëriñ xaadim mbàkke yàlla fayal te yokk leeru waa waajuram wa sëriñ muudu alxafis mbàkke ak njabootuk sëriñ muudu alxafis mbàkke yi ko fekki moo xam góor la wala jigéen ndax kat sëriñ muudu alxafis mbàkke amoon na yeneen doom yu góor waaye dañ ko jiitu ñu ràññee woon ci ku ñuy wax ma cheikh mamadul mustapha mbàkke ak sëriñ muntaqa mbàkke ak ñeneen waaye ñooñu ñoo jiitu sëriñ muudu baara doomam jim fi bàyyi woon tam wuutu woon ko ginnaawam di sëriñ xaadim mbàkke yàlla na yàlla yokk leeram itam sëriñ xaadim mbàkke du baara sax mi ngi gane àdduna ci atum 1937 ci dëkk bu sell bi di Touba ci quartier boobu di Touba guy mbind doomu sëriñ moodu alxafis mbàkke la ñu gën koo xam ci sëriñ du baara mbàkke ak kii di soxna faati jóob bintu sëriñ ñaan jóob sëriñ xaadim mbàkke maamam xaadim rasuul la ko waajuram wi tuddee di sëriñ Touba seexul xaadim mu taamu woon tur wi di xaadim ñu di ko ko woowe sëriñ xaadim mbàkke ibnu sëriñ Modou Alxafis Mbàkke amul kenn ku mu bokkal waajur wu jigéen wi di soxna Faati Jóob kon benn doom la ci waajuram wu jigéen wi bi matee dal lii di alxuraanul karim moom sëriñ xaadim mbàkke ibnu sëriñ du baara mbàkke sëriñ moodu baara mbàkke moo ko dalal lii di alxuraan ginnaaw bi nag la ko jébbal ku ñuy wax sëriñ moodu faal absa sëriñ moodu faal absa mi mu ngi dëkk ci dëkk bu ñuy wax kër mataar binta nekk ci kajoor ginnaaw ko sëriñ moodu faal absa ci dëkk bii di kër mataar binta nekk ci kajoor Kajoor sëriñ xaadim mbàkke nag jóge na fa ñu yóbbu ko ndaam ci kër sëriñ moor jabuloo ginnaaw foofa indiwaat nañ ko tuubaa ci kër sëriñ ñaan jóob ci nijaayam ju ñuy wax njaga jóob fii nag alxuraan a xam-xam la fi doon boolee jàng ginnaaw kër sëriñ ñaan jóob ci ëttub nijaayam bi di sëriñ njaga jóob joxaat nañ ko nag ku ñuy wax sëriñ seex sëy mu wéy di ko jàngal lii di xam-xam ginnaaw sëriñ seex sëy nag jox nañ ko sëriñ moodu maamu ñang bu sëriñ aafiye ñang moom itam tëralal na ko lii di xam ginnaaw bi nag mbàkke gaynde faatma boole woon ak sëriñ mbàkke soxna loo yóbbu leen ci dëkk bii di gànnaar ñu wéel fa seenum njàng ba géeju fa lool ci wàllu xam-xam sëriñ xaadim mbàkke du baara bi waajuram wi di sëriñ du baara mbàkke di génn àdduna ci atum 1952 kii di sëriñ xaadim ci fukki at ak juróom rek la toll wala fukki at ak ñeent am njàngam noppeegul waaye teewul na kii di rakku waajuram wa di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma jël na ko ngir mu wéyal lii di am njàngam ndax kat xam na ne bu ëllëgee responsabilité bi wala mbooloo mi toppoon ci ginnaaw sëriñ Moodu Baara mi ci ginnaaw sëriñ xaadim lañuy topp sëriñ xaadim mbàkke di dem gànnaar nag moo toog toogaayu sëriñ Moodu Baara Mbàkke xalifa la te teewul wéy na di jàngi bi mu jàngee ba ñëw nag la wéyal lii di xilaaf ak sëriñ Moodu Baara yore ko moom la ñëpp xoole sëriñ Moodu Baara Mbàkke mi kóllëre googu mu amoon nag sëriñ Mbàkke soxna loo bi ma yóbboo ci réew moomu di gànnaar ñu nekkoon fa seenu magante bariwul waajur wi itam wenn la kóllëre googu wala jàngandoo googu mu defoon nag sëriñ mbàkki soxnaloo loo foo masaa gis ko sëriñ mbàkki soxna loo sëriñ xaadim nes tuut mu fekk la fa wa illaa daal danga ko gis ca wet ga loola itam tax na lii di xel koom sëriñ xaadim kenn mënu ko ca woon heure buñ masaa wax xel koom ni muy tàmbalee ba ni muy jeexee bokk na sax ci jëwriñ yi jiite liggéey bi magam lañ ko mbàkke yi nga xam ne nii bu ñuy wax jàmbaari xel koom moom la ku bëggoon njabootug sëriñ tubaa seexul xaddiim gi la ba amu ci woon lii di xajj ak seen rawatina doomu seexul xaddiim yi ñooy ay maamam ginnaaw bu mu ñibbisee am njàng nag mu wéyal ndonol sëriñ muhammadu alxafis mbàkke mi ñu gën a xam ci sëriñ moodu baara mbàkke moo xam tey siir ji sëriñ du baara sancoon ci ndigalul kii di cheikh mamadou lamin baara mbàkke wéyal na ko ba lii di màggal jóge ci Taysiir ginnaaw bi rek lañ ko indi ci dëkk bu sell bii di Touba ci atum 1994 jàpp 1995 waaye lu ko jiitu Taysiir la doon amee ndax xam na ne kat mooy dëkku waajuram te moo ko moom kër gi mu dëkkee ci Touba di kër sëriñ Xaadim du Baara waajuram wëpp moo ko moomoon di sëriñ du Alxafis Mbàkke mi ñu gën a xam ci sëriñ du Baara Mbàkke ndax wax naa leen kat sëriñ du Baara Mbàkke moom la fi bàyyi ci doom ju góor mu wéyitim topp ci ginnaaw sëriñ Abdul kat léegi waajuram la te moo fi wuutu waajuram wa te moom lay xoole cheikh mohamadou lamin baara mbàkke sëriñ xaadim moodu baara mbàkke ginnaaw bu maamam ja nekkoon bindkat nekkoon ku ràññeeku ci wàllu njàng njàngale waajuram wa di sëriñ moodu alxafis mbàkke itam nekkoon bindkat nekkoon itam ku ñu ràññee moom di sët bii di sëriñ xaadim itam jaar na fa ay waajuram jaar moom itam nekkoon na bindkat ginnaaw fa mu jaar fépp ci wàllum njàng bind na itam ay way ci kàllaama gi di kàllaamay wol wolof jagleel ko maamam ji sëriñ tubaa seexul xaddiim ngir ni mu taxawoo jaam ñi man cay sant suñu boroom ndax way wu ne alxamdulilaahi la ko tàmbalee wala moom la ko daanelee ngir sargal maamam ja xaadimu rasuul ñu teelu lenn ci wolofal gi alxamdulilaahi kay daa war bépp murit guddeeg ba ku ne na alxamdulillah alxamdulilaahi daam yow rekk a jóg summiku bay toolu diine mu ñor alxamdulillah daam lii war abadan jëw diñ ki ma doy alxamdulillah alhamdulillahi daam sa jëf moo gën rëy sa yërmandeenu dajal alhamdulillah alhamdulillahi daam yaa tax ku ñuul ami ndam yow yaanu may sa ndimbal alhamdulillah alhamdulillahi daam sa may yi dootu fi am yeneen yi ñëpp la naw alhamdulillah alhamdulillahi daam tiraanga yaanu ko may ku ñëw fi yow nga defar alhamdulillah alhamdulillahi daam gox yëpp maase na tey gànnaar ba saalum ku ñëw na alhamdulillah alhamdulillahi daam kuy waaju ndax mi ngi naa may na ma loo ku ko am naa alhamdulillah alhamdulillahi daam teraanga yaanu ko may ku ñëw fi yow nga teral alhamdulillah alhamdulillahi ngir Mustafa njëkk a wax sa cant war na ku ne alhamdulillah xasida googu ngeen doon déglu te sëriñ xaadim du Baara bind ko di ca sant suñu boroom jaarale ko ci maamam ji nga xam ni suñu boroom moo ko defal li mu am te moom mu nekk ab jaam bu war a sant maamam ji nag xasida googu wala wolofal googu xayma nañ ko ci ñaati téeméeri téeméeri way ak juróom fukk ak ñett wala juróom fukk ak ñeenti way lépp lu nekkoon donal sëriñ Mouhamadou Alxafis Mbàkke mi sëriñ xaadim sàmm na ko toppatoo ko ba xat dëmmul ku fi nekkal cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke topp na ci sa ginnaaw ginnaaw waajuróom wa sëriñ Mouhamadou Alxafis Mbàkke ñu gënoon koo xam ci sëriñ du Baara Mbàkke sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke ba ci kii di sëriñ cheikh Mati Lay Mbàkke ñooñu ay waajur la leen defoon ak lii di sëriñ xaadim defoon na la rakk te wuufoon na la koo ko laaj ci njaboot gi mu seedeel la ko relation itam ku ko amoon ak njabootu cheikh mamadou lamine baara mbàkke gi la rawatina ñim bokkal waajur ci ëttub cheikh mohamadou lamine baara mbàkke gi muy rakki sëriñ muudu alxafis mbàkke yi yeneen kër yi nekk ci yoonu murit foo ci dem itam sëriñ xaadim muudu baara da nga yaakaar ne fa la dëkk ndax kat bokk na ci sëtaat yi mag ci yoon wi ñi muy xoole maamam ja cheikh mamadou lamine Lamine Baara Mbàkke yi moo xam sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke la Seex Murtada Mbàkke ñoom itam daana def saa su ne mu dem di leen nemmeeku suñ mbokk yeneen tarixa yi amu ci woon xàjj ak seen daana toog ba mu yàgg mu sol aw dàllam dem seeti kenn ci kilifay ziyaare la ba ci alxamis ji mujjee nekk ci kaw suuf dem na ziyaare ji sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke ak kii di Seex Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul sëriñ Xaadim ku fonkoon bis bii di alxamis la nakate ci lay génn lii di àdduna waaye taxul woon na kenn comprendre lu tax mu fonk bis bii di alxemes ci atum 1991 ba ni mu génnee àdduna ci 2002 daana def bis bii di alxemes bu jotee mu teral ci ay nit sarxe ci boole koog nag jàngulu ci lii di ay kaamili alxuraan toppoon na ko 91 ba 2002 alxemes bu ci am def na loolu waaye kenn xamul woon ne nakate ci bis bii lay tàggoo ginnaaw feebar bu ko tëral ci diir bu xaw a yàgg sëriñ xaadim moodu baara mbàkke mi ngi génn àdduna bisub alxemis ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi di weeru digg ci atum 1422 ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan ak ci weer wi di weeru digg ci atum 1422 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 7 février 2002 jeudi 7 février 2002 ci kër gi mu donnoo woon ca waajuram wa di sëriñ moodu alxafis mbàkke ñu gën koo xam ci kër sëriñ moodu baara nekk ci tuubaa guy mbind bëccëg gi alximis ji di juróom ñaari fan ci weeru février ci 2002 dëppoog muy alximis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru digg ci atum 1422 sëriñ xaadim def na ci lu yéeme ci bëccëgu keroog gi ndax dajale na mbooleem doomam yi nekkoon ca kër ga jamono jooju ci alximis jooju boole koog lenn ci taalibe yu fa nekkoon ca kër googu ci bëccëgu alximis googu na leen kaay leen ma leen biir tey jiikat ngeen di ñàkku sëriñ tey jii ngeen di ñàkk baay malaaka mi may jël si mi ngi nii toogandoog man ci kaw foto yi dafa am rek lu muy xaar lenn ci njaboot gi ak taalibe yi tàmbalee jooy bëccëgug alxamis boobu sëriñ xaadim moodu baara di leen wax ne su ma xamoon ne su ma leen ko waxee nii ngeen di def de duma leen ko wax ñenn ña jóg di sëlmu ji ñenn ña toog ña jógoon di sëlmu ji laata ñuy delsi fekk nañ sëtub xaadim ba dem kon nii la tàggatoog waa këram bëccëgug alxamis juróom ñaari fan ci mois de février ci atum 2002 teewal ko ki toogoon toogaayu maamam di sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke ndax kan moo nekk xalifa cheikh mamadou lamine baara mbàkke ak kii di sëriñ touba cheikh saalihu mbàkke mi fi toog xalifa général des mourides sëriñ muntaqa mbàkke ibnu cheikh mamadul bachir la sëriñ touba cheikh saalihu mbakke yabal moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko ci wetu waajuróom wa ak maamam ja di cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke ak kii di sëriñ moo moodu alxafis mbàkke ci booy dugg armeer yi ci sa loxo càmmooñ ay xalifaam sëriñ du baara mbàkke moo toog xalifaam ak xalifaam maamam sëriñ du baara mbàkke moo toog xalifaam nag ci 2002 ba nëgëni sëriñ xaadim du baara am na bis buñ koy fàttaliku mooy fukki fan ak benn ci weer wii di weeru korite bis boobu nag lañ ko booleeg waajuram wa ndax moom moo taxawaloon bis boobu waajuram wa kon ñaari bis lañ boole muy benn ci tuubaa guy mbind ci buntu kër waajuram wa ak buntu këram di kër sëriñ xaadim moodu baara ci tuubaa guy mbind xaadim mooy ki leen di fàttaliku saa su ne moom la ñuy xoole maam ja ak baay ba ak mbooleem ay rakkam yu mu séqal sëriñ xaadim moodu baara ak ay bàjjanam yàlla na suñ boroom guddal seenu fan te yàggal leen fi te lii di métti méttum réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajay ñaari góor yàlla yooyu amiin yàlla yooyu amiin yàlla yooyu amiin yàlla